rom saar bu nu weesoo loolu maa ngi leen di dénk sunu jigéen febe miy liggéeyal mbooloom ñi gëm ci dëkku sansere nangeen ko jàpp ci tuutu borom bi ni ko gaay yàlla yi yelloo te dimbali ko ci lépp lu mu aajowoo ndaxte moom itam wax dëgg dimbali nañu bari ba ci man mii di wax ak yéen nuyu leen ma prisil ak akilaas samay nawle ci liggéeyu kiristu ñoom ñaar dem nañu bay bëgg a jaay seen bakkan ngir man maa ngi leen di gërëm ci loolu du man rekk sax waaye itam mboolooy ñi gëm ci xeeti àddina sépp nuyu leen ma it ñiy booloo ci seen kër maa ngi nuyu it epaynet mi jëkk a gëm kirist ci diwaanu asi ak maryaama mi sonnoon lool ci yéen nuyu leen ma it andronikus ak yuniyaas sama mbokk yi ñu ma booleeloon tëj am na ñu tur ci ndawi yàlla yi te ñoo ma jiitu sax ci gëm kirist te fàttewuma ampliatus mi ma bëgg ci sama xol ngir borom bi nuyu leen ma it urban sunu nawle ci liggéeyu kirist ak sama soppe stakis ak it apales mi ngëmam dëggu ba yelloo kóolute nuyu leen ma it waa kër aristobul ak erodiyon sama mbokk ak waa kër narsis ñi ci borom bi maa ngi nuyu tirifen moom ak tirifos jigéen ñi sonn ci liggéeyu borom bi ak it sama soppe persid mi ci jeex tàkk maa ngi nuyu it rufis waa ji xolom seey ci borom bi ak yaayam mi ma féetewoo nit cërub ndey te fàttewuma asankrit flegon hermes patrobaas hermas ñoom ak mbooleem mbokk yépp nuyu leen ma it filolog ak yuliya neere ak jigéenam te fàttewuma olimpaas ak gaay yàlla yi booloo ak ñoom ñépp te yéen mbokk yi saafonte leen ak xol bu laab mboolooy ñi gëm kirist yépp a ngi leen di nuyu mbokk yi maa ngi leen di dénk ngeen moytu ñi leen di féewale ba di leen jàdduloo yoon wi ci wax lu juuyoo ak dëgg gi ngeen jàng daw leen leen ba sori ndax ñu deme noonu liggéeyaluñu kirist sunu boroom seen bopp lañuy liggéeyal ñu ngi ñëw ak làmmiñ yu neex di jaay xol yu woyof yi ba nax leen waaye seen dégg ndigal biir na ñépp ba sama xol sedd lool ci yéen teewul nag dama bëgg ngeen am xam-xam bu leer ci lu baax te bañ a laal dara ci lu bon su ko defee yàlla boroom jàmm dina noot seytaane ci seeni tànk léegi ne yiwu yéesu sunu boroom ànd ak yéen timote sama nawle bi may jàppale ci liggéey bi mu ngi leen di nuyu ak samay mbokk lusiyus yason ak sosipater man tersiyus mi bind bataaxal bii nag maa ngi leen di nuyu ci turu borom bi gayus mi ngi leen di nuyu moo may ganale ci këram te foofa it la mbooloo mi di dajaloo erast mi toppatoo mbiri xaalisu dëkk bi it nuyu na leen ak sunu mbokk kartus na yiwu sunu borom yeesu kirist ànd ak yéen amiin sant leen yàlla mi leen mën a saxal bu wér ci dëggu xabaar bu baax bi may waaru ci mbirum Yeesu Kirist nekkoon na kumpa gu làqu diirub ay ati at waaye léegi nag yàlla dindi nañu ci kumpa te santaane na ñu yégle xabaar boobu ci xeeti àddina sépp ci firim bi mbind yonent yi ngir nit ñi man koo gëm ba jébbulu yàlla mi jagoo xam-xam bépp moom rekk moo yelloo ndam ba faw njaar ci Yeesu Kirist amiin